mbokk yi jërë ngeen jëf yéen ñi topp ci 24 actu point com am nañu mbégte lool fas yéene ànd ak yéen tey jii nag ñu fas yéene wax ci caméra vidéo de surveillance ñu fas yéene ci waxtaan ànd ci ak yéen ñu dund ak moom te am lu bëri loo xam ne ñu bëri bàyyiwuñ ko ci xel boroom xam-xam yi sax nee na ñu wax ay vidéo de protection jombul dinañ ci dikk nu mu gën a yaatoo ñu daal di koy tàmbali ak yooyale caméra de surveillance jamono ji nag daanaka ñu bëri ràññeeku nañu lool ci yenn ci entreprise yi wala sax ay kër ak yeneen i bërëb yoo xam ne dañu ko fay def yooyu nag nekk yoo xam ne rek mën naa jëriñ askan wi ci wàllu ko kaaraangeek ya ca aju waaye nag lépp mi ngi aju ci anam bi nga xam ne noonee lañu koy jëfandikoo caméra vidéo de protection yooyu nag dafay collecter ay image waaye tamit mën a jëriñ lu bëri ci wàlluk enquête waaye tamit mën a jëriñ lu bëri ñi nga xam ne ñoo di takk deri ci wàlluk enquête yu ak yu ni itam lu ci bëri mën na ci indi ay seede bari nag yu wuute yoo xam ne itam am na ci ñu gis ñu bëri ñoo xam ne itam ci entreprise yi foofe dañu ko fay samp moo xam muy visible mooy yi ñu mën a teg bët ak yu invisible yi nga xam ne kenn mënu su ko teg bët waaye nag lu ci ëpp nag bu dee caméra extérieure yi yooye ay caméra visible lañ bu dee caméra intérieur mu yi nga xam ne rek ñooy nekk ci biir loole yu ci ëpp ay caméra invisible lañ maanaam du ñu neex a gis yooyee lu ci ëpp moom la ñuy tuddee ay caméra espion am na yi forme lentille wala sax yoo xam ne ay ampoule léegi nag bëri na ay façon yu bëri yoo xam ne am na ci moo xam ci wàllu stylo bii wala sax ay montre wala sax ay lunettes bu njëkk seetlu gi moo di am na ay caméra de surveillance yoo xam ne daanaka yi ci ëpp ay image rek la doon jël waaye du am audio léegi nag seetlu gi moo di yu ci bëri dafay ànd ak image waaye ay waaye tamit dañuy enregistré ak ojo foofee nag la jafe-jafe bi nekk muy yi nga xam ne day jël image wala sax yi nga xam ne dafay enregistré wala itam yi nga xam ne dafay ànd ak yenn ci entreprise yoo xam ne dañuy am ay caméra vidéo de surveillance yoo xam ne dafay jël audio foofee nag fa la jafe-jafe bi nekk ndax ay jafe-jafe mën na koo andi lu jëm ci données personnelles yi ki nga xam ne dafa am entreprise am am na droit samp fa ay caméra de surveillance waaye tam ci ay anam yoo xam ne noonee lañu koy jaaree lu ci mel ni li nga xam ne moo xewoon ci réewum États-Unis ndax foofee seetlu woon ñu bëri ay caméra yoo xam ne dafa àndoon ak audio maanaam ñi nga xam ne ñoo dëkkee foofee la ñu doon def lu ci bëri dafa ci doon feeñ loolee juróon jafe-jafe bu jafe-jafe gu mel noonu amoon nañ ko ci lu jëm ci wàllug données personnelles yeeg yu ni mel li ma ta leeral itam mooy bu fekkee ne dangaa am ay caméra vidéo de surveillance ci sa bërëb bu liggéeyukaay war ngaa leeral bind xam le ne fii am na ay caméra vidéo de surveillance loolu mooy yoon ci fànn googee comme ni nga xam ne yenn kër yi bu ñu amee ay xaj soxor ñu bind ne fii ab xaj bu soxor mu ngi fi loole ci wàllug yoon itam loolu lu ñu war a leeral la ci dëkk yooyu sax daanaka léegi yaatu na fi bu ñu demee fi ñuy wax Singapour nga xam ne daanaka bokk na ci dëkk yi nga xam ne ñoo gën am kaaraange foofee ay jafe-jafe jotoon na faa am ci fànn waaye seetlu gi moo di nu ngeen ko gisee foofee moo xam la tàmbalee ci hôtel yi wala sax taxi yi foofee ay vidéo caméra de surveillance la fay samp moo xam oto bi daw wala mu taxaw loola lépp ma ngay jël image yi nga xam ne mooy xew ci bés bi ci 2015 am na jafe-jafe goo xam ne amoon na foofee ca Singapour ñu dellu siwaat yi gannaaw ñi nga xam ne ñoo dëkkee foofee seetlu woon na ni benn ci bërëb yu nekkee foofee ñi dëkk ni dañu fay sànne ba noppi te xamuñu kan moo koy def gannaaw ba ñu dikkee foofe itam ñoom itam hésité wuñu monté fa ay caméra vidéo de surveillance gannaaw foofe ca la ñu jàppee genn la ci fanweer ak ci ay mégo yoo xam ne war na koo fay ak goo xam ne askan wi yëpp la koy defal kon mu mel ni caméra vidéo de surveillance yooyu am na génn nag fànn goo xam na lu jëm ci protection données yi foofee la bi nekk donte aar na leen comme ni ngeen koy gisee ci vidéo bii kii nga xam ne daanaka dafa teg ay bagageam yi nga xam ne da ko teg bàyyi na ko fa ab diir ci restaurant bi amul kenn koo xam ne laal na ko lu dul linet yi nga xam ne daanu na ñu faral ko tegaat ko foofu kon loolu am na ci wàllu kaaraange waaye nag bu dee lu jëm ci wàllu données personnelles yi am na ay jafe-jafe yoo xam ne itam jotoon na ko faa jur ndaxte foofee daanaka réew ma foofee lu jëm ci caméra de surveillance yooyu monté nañu ko fu bari ba ki sax yenn ci ay toilettes yi ñooñee ay jafe-jafe amoon na ci seen diggante ndax ñoom jàppoon nañ ne jàng ya nekkee foofee léeg-léeg mën nañoo sàcc lu jëm ci wàllum sampoing yu mel noone surveillance di wuññi seen sutura wàllu caméra de surveillance yooyu am na ci yoo xam ne fi mu toll ni méngoo naag jamono mën naa jël lu bëri waaye du nangu ñu zoomé ko maanaam mu jegeele image bi ba ci autoroute yi nga xam ne ñoo nekkee foofee lu ci bëri seetlu gi moo di l'accident yu bëri yi nga xam ne dafay faral di am foofee itam am na ci lu bëri loo xam ne vidéo protection yooyu daf koy wane ak excès de vitesse yi nga xam ne itam des ko fay faral di nemmeeku kon daal a jàpp mooy bu fekkee ne da nga am sa entreprise am nga droit jël ay yoo xam ne yuy jël la ngir aar bërëb boobee waaye nag bu dee lu jëm ci wàllu audio loolu nag dafa am ñu ñu ko jagleel moo xam lu jëm ci wàllu police ngir seeni enquête wala lu ci àjju bu dee nag ci réewum Sénégal gis nañu installation yu nga xam ne dafay am ci ay caméra vidéo de surveillance dinañ ci dikk ak caméra yi nga xam ne moo nekkee ci mbedd mi daanaka léegi seetlu gi moo ci bari na ci lool jërë ngeen jëf mbokk yi tey li lañ neen andiloon dinañ dikkaat ci yeneen ponk ci wàllu euh, technologie incha allah yéene kee ànd ak ak ni nga xam ne noonu lay doxee ci àdduna bi jërë ngeen